Euh, sûreté urbaine euh, jëlee nañu ko fa ba ci euh, division cybercriminalité rek fa nekkoon momi tam jëlee nañ ko fa nak nga jangaté lolu wa ni koy jangaté moy mbirum politique la parce que duñu xolé lepp luy musa am ci histoire du Sénégal ba police bi am jafé jafé politiciens yi ñoo leen koy teg après du yeneen régime ñëwee régime politicien tamit ñom tamit def seen mën xam nga lu ñu wara xam moy policiers dañu nek ay fonctionnaires comme Diomaye ni mu ko nekkee woon comme Sonko ni mu ko nekkee woon sont des fonctionnaires de l'État ak lu ñu mënti def ci dëkk bi ak lu mënti xew ñom ñoy protéger suñu sécurité kon war na leen mën a dooleel leen ba nga xam ni homme politique duñu mëna dal yow sen kaw damay rebondir sama grand di wax dañu wara am syndicat comme ñom parce que privilège yu Diomaye di am ba mu nekkee impôt domaine privilège yu Sonko amoon ba mu nekkee impôt domaine ñoom mësuñu ko am te lepp loo xam ne danger la si mhm. dëkk bi ñoom ñoo si taxaw ce sont les meilleurs patriotes de ce pays l'armée et la police nationale du ñuy wax patriote dëgg ñoom la mhm. ñoom ñooy bàyyi seen njaboot bàyyi seen pap bàyyi seen yaay taxaw ngir défendre man mi nga xam ne ni bokk ñoom moom dara mais réew mi moo ñu boole kon li ñuy wax rek ñoom policiers yi war nañu prendre leur avenir en main mhm. comme Sonko nu mu ko defee woon ba mën a am kër jomaay def ko ba mun a am kër te ñoom privilège boobu ñoom mënuñu ko def ba am kër te ñu bokk ci même domaine bi ñu nekk nekkoon ay fonctionnaire de l'État ok Aïcha alors euh, euh, au moment où euh, je sais jamono joo xamante ne nii ñi ngi wax waxu hausse euh, du taux de criminalité euh, faut tourner ñu né diw rayna tiw wala diw def na li est-ce que japp nga ni c'était pertinent pour que ñu jël un homme de terrain comme nous ko waxé sank comme Adramé Messar mi nga xamante ni mi ngi def un liguey un un travail colossal ci côté bobu dal di koy jël yobbu ko ci ay bureau waaw xam nga xam nga nit ku nek euh, ni population mel njiit bi yow bi la parce que violence fi depuis bi au pouvoir avant ñu nek bu opposition ba pouvoir violence continuer parce que loolu lañu servir sénégalais dañuy un politique autrement mais avec la violence la ko de menacer nit premier ministre taxaw justice woo police bu jël si mu booy génn takk dëkk bi yak dëkk bi loolu moo continuer kon liñu dal ni tay ñom la lañ nane jomay la ak sonko parce que ñom ñoni ni jox leen ñu seen sécurité ñu téyel le sénégalais yi bolé jël sécurité sénégalais yëpp jox ko jomay ak Ousmane Sonko ñoo télé dañoo mënul téye réew mi motax ñuy gis chaque jour moo am chaque jour moo am kon dañuy wax rek ñom nañu jël seen responsabilité parce que lii nii yëpp xew fi du photo kenn ah, du photo sénégalais du photo police bi fotu njiit yu ñu jiite la parce que ñoom ñoo ne ne nañ leen yow nañ leen dénk suñu kaaraange jox nañ leen ko nag nañ ñu wax ñoom lan la ñu mën parce que loolu léegi mooy problème mu sénégalais fu mu nekk nii kenn nelawatul kenn nelawatul sa doom day génn sax sa fit du daal lu waral loolu nag mooy ñoom façon bu ñu doon opposé ak fi mu nekk nii façon bu ñuy gouverner moom la sénégalais yi am jiixi jaaxa ñoom ñëpp si ëllëgu réew mi. Mm-hmm. waaw d' accord dinaa ñëwaat ci yow euh, Pa Oumar euh, Fatim Ndiaye lan mooy sa gis-gis déjà euh, ci changement yi nga xamante ne ni opéré nañ ko ci police nationale. Anne yi je crois que le constat comme ni ko ñëpp seetloo waaye bii dafa ñëw peut-être bu yokk ci mais dañu ko commencé bi ñu njëkkee ñëw général Moussa Fall bokk na ci ñu njëkk dem. Euh, ainsi de suite ba ñu yegg si si Adarame ñu rappelé ne euh, semaine bi ñu génn euh, depuis boobu ba léegi dafa mel ni turu Adarame Sarr moom ñi ko xamul woon sax gën nañ ko dégg à travers yi nga xamante ne moo fi amoon ñaawte fi te mu def ci liggéeyam solo fu tourné ci réseau bi moom ngay dégg je Adarame Adarame donc def na liggéey ba am solo dafay wane rek ni jàmbaar la moom aussi si domaine bu mu fa nekk et du moom kase hein, nos forces de défense et de sécurité ñoom ñëpp de à l'unanimité dañu nekk ay jàmbaar wax dëgg yàlla yàgg taxawal réew mi foo xamante ne nii amaana su du woon ñoom ñaaw na ndax yi fi jaar bari te ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët ah, ah, donc am na noo xamante ne noonu lañ doon mel euh, ci comportement ah, ci jikko ak ci mën-mën heure bi amaana kon ndi kon waxatuñu ko waaye nag wax dëgg yàlla wane nañ seen patriotisme Omar wax na ko léegi Cheikh Omar seen patriotisme la demee ba mu mët sëkk ba taxawal réew mi ba ñëpp yaakaaree ni day daanu mosul daanu mu jugaat taxaw mhm. ñu nekk tey Sénégal bi ñu bëgg ba ñëpp toog di ko waxtaanee donc ñu mel noonu nag man ci sama gis-gis wax dëgg yàlla danga leen war a mën bëgg waroon gën a jàpp mhm. gën leen dooleel fi ñu nekk gën leen jox ay ay ay ay ay moyens yi nga xamante ne dina permettre ñu gën a lu ñu protéger dëkk bi rek doyul ñu yokk ko si mhm. waaye su fekkee ni ki euh, ñu mel noonu da ko am li ñu constaté mooy euh, la plupart ci ñu ñu wàccee ku ci nekk sa adjoint peut-être la ñu yéegal ci kaw te loolu du ci FDS rek lañ ko seetlu parce que ci yeneen entreprise yi sax boo seetluwee euh, bu ñu wàccewee euh, euh, DG bi mhm. substitut bi la ñu yéegal ca kaw mu ñëw remplacer ko léegi nag ñoom ñoo xam ban domaine la ñenn ñii di politique ñi nga xamante ne ñoom politique politicienne la ñuy def mhm. dañu jàpp ni ki peut-être ñooña dañoo nekkoon ñu leen fa toogaloon te booba yeggseeguñu peut-être loolu moo tax mhm. ñeneen mën nañ ko analyser beneen côté ndax ku nekk tamit sénégalais nga ñun ñëpp on est des sénégalais ku nekk war nga mën a am chance Euh, am benn poste boo xamante ne nii war nga war nga ci jëriñ sa réew euh, am nga chance yokkute yéegal niveau bi tamit ci kaw yow tamit ndax loolu la ñëpp di ñaan waaye lu mën di doon ak nuñ ko mën di defee ak luñ mën di def li ñu importe nous les sénégalais mooy ñu teg ñoo xamante ne ils sont meilleurs ils sont efficaces te mën nañoo yor Sénégal ba lii ñu fi gis muy law parce que quoi qu'on dise ana ci mbirum sécurité la ñu nekk c'est trop sensible te liy xew ci réew mi léegi dafa metti da ngay yeewu ñu ne la diw dañ ka ray njiw dañ ka ray te ray boo xam ne dafay dem léegi bay dugg ci biir néegi di ray donc nous avons besoin de sécurité te moment bi ñu ba soxla sécurité waruñoo nekk ci affaire affaire positionnement ak yenn neex yenn ni li fi ñu waroon toll mooy joxe nañ les moyens maximum ñi nga xamante ne ñoo ngi doxal réew mi sécurité bi ba mu dox boobu ba léegi ñu dooleel nañ leen ba ña ngay yokk sécurité waaye comme li am am na lépp lu ñu si mën di wax rek mooy nga la nañu góor góorgóorlu ba réew mi fii ñu toll nii tey wallaay luñ si mën ñu génnee ko ci ba nga xamante ne nit ñi mën nañ leen jox ci sécurité ak sa xel bu dal parce que vraiment fi ñu toll nii waxuma la dox ak ñàkk dox mais ku tëdd sax ne la mais les la sécurité du pays nañu ko épargné ak la politique politicienne pour que sénégalais puissent avoir a am jàmm bi ñu alors bu ñu dellu see par exemple ci euh, lecture euh, politique bi nga xamante ne nii tout à l'heure ni mën nañ ko am ci euh, cette situation vous euh, nous le cas de Barra Sangaré par exemple nous wax ni l'homme des forces spéciales des forces occultes euh, les réprimés est-ce que euh, Lolo Diapoloni, ni qui na ci leader, justement ñu opérer ce changement aux allures de sanctions ah mais c'est tout un Il ñu chaîne chaîne d'exécution là la protection que ça soit la police la gendarmerie comme on le donne les militaires, les ci militaire police bi sapeur pompier c'est notre service qui fait la coordination de la sécurité Ben, ben, ben chaîne la bu suivre Les gendarmerie war traiter zone bi gendarmerie police zone bi am na au sommet hiérarchiquement da ngay gis ni donc ñii ñoo ko war a traité bu nekkee Bara sangre, war ko traiter. <laughs> mais Bara Sangaré moo koy mais Bara sangre, bu ñëwee ci ministre de l'intérieur ne quoi ah moi, j'ai vu les forces occultes parce que j'ai mes renseignements et mes renseignements généraux m'ont donné ceci, cela, ceci, cela. Nous vérifions mon phonèque. mais ministre de l'Intérieur, il est de la police Nous mu l'armée, consulter armée gendarmerie consulter de manière que nous sommes aussi Il y a des techniciens de surface il y a des techniciens de terrain ku ci a des armée y a des gens qui sont spécialisés en crime qui sont spécialisés euh, euh, en combat qui sont spécialisés en armement qui sont spécialisés en tactique de combat te ay aspect bu ci buñ ko ah, l'innocent aux armes mais loxo qui ñuy déplace, déplacement bi di am ci terrain bi ku xam terrain bi bu la ah donc y a force occulte faisons les enquêtes ñu xol les blessés les morts selon le critère de de de de de de de de mort ñu xool kii bal lañ ko impacté ban bal la ko dal ñu jël bal bi expertise xol bal bi ci ban arme la jógee est-ce que arme bi amna autorisation circuler Sénégal est-ce que arme bi police moko détenir wala gendarmerie wala quiconque de la douane parce que arme bu nek amna numéro immatriculation comme auto yi légui bu fekkee réunion réunion nañu yëpp ba teg ko né way effectivement mos nañ gis genre bal bi mu jógee dans le secteur de MFDC exemple ñu ne woy parce que arme bi MFDC da koy utiliser Ta armée sénégalaise utiliser ko police et ko mais dañ naan y' a force occulte mën nañ bañ a wax directement sax force occulte bi fii la dëkk mais dinañ wax une force occulte moi kenn koo xam il sait utiliser les armes Légui bu ci sangara joté jël ko envoyé ko ministre de l'intérieur. mais ministère agir mais fi muy jógee nga xol le le le chef d'état major des de la gendarmerie mu nekk Moussa Fall ñu jëlé ko fa ñu avons un colonel euh, général Kande, ñu ko fa ñu vu ainsi de suite les choses s'améliorent de jour en jour changer des postes c'est normal on peut on peut changer parce que Adrien nous avons ñoo que ñoo avons que nous mais brusque day melni lo aussi sanction la parce que ko ci anam affaire Sénégal yépp actuellement moy l'affaire des crimes yi nous gis brusquement amener alors il y' a un travail et des enquêtes qui sont entamées mais vous vous un instant ci période enquête boobu Sénégal mais nous allons nous revenir dans la tête que ni est ce que ce n'est pas ce que disait Antoine Diom qui est en train de progresser de pas à pas parce que si le général Fall quitte si Kande quitte si encore euh, euh, euh, euh Sarr quitte si Sangaré quitte le ministre le ministre de l'Intérieur il bi force ay forces occultes mais après il a dit mais c'est quoi le problème. Ce qu'on voyait de la petite tuerie qui fasse à maintenant de se rendre compte que c'est maintenant interpersonnel. Ce qu'on appelle un management de conflit. Comment trouver le socle des incidents Trouver le socle des incidents, Yanko interpersonnel. Dans un service interpersonnel, il y a un chef comptable, man ma chargé des affaires, ma ñëw ci yow, mais yow boo ma refuser l'autre, tam war a dem ci état bi war euh, état société bi société alors aujourd'hui si vous tay ça va côté politique ba mu ngi répondre côté militaire wala gendarme moi je me dis que c'est un danger C'est un danger. parce que ñun gis nañ fi nit jël pes ci porte du militaire du gendarme te du policier gis nañ daanu nañ fi ne bal lañ leen ñu ne lañ leen ñu ne am nañ vidéo un policier daanu gis ku ci mais ça c'est des choses qui ne sont jamais existées alors nous devons ba Ben Ben Moussafal, Ben général Kandé toute cette équipe qui ont réussi à maîtriser ce Sénégal Nous devons skipper, ci organiser l'élection présidentielle mais non ce ne sont pas des personnes à changer et normalement dans toute la police la gendarmerie dans toutes les bonnes structures dans le monde que même le constat des Nations Unies a vu ce n'était pas des têtes à Même s'ils sont à changer de le poste, mais ils doivent être dans des postes veillants. C'était ça l'essentiel. Mais lui-même, ah, je le dis et je le répète, bés bu ñu toogee ba dëkk bi ku nekk di régler situation ah, bon entendeur salut. alors on a l'impression que politique secteur la dernière fois le euh, euh, président de la république a nga euh, siéger conseil supérieur de la magistrature une magistrat aujourd'hui on parle de la police ku am sa interprétation une interprétation politique waaw li mu mën a jural mi rek mooy ñun ñëpp ñu bañ am sécurité parce que sénégalais bu ñu fàttee ay waxu opposants yu fi nekkoon si mel ni Ousmane Sonko ay règlement de compte lay réglé ni, parce que il l'avait dit promesse campagne la wol. ay règlement de compte lay réglé ak suñu fonctionnaire de l'état yi nga xam ne ñu woon ñoo yoroon réew mi am na nag ñoo xam ne mënul jot si ñoom comme ñi fi nekkoon euh, président ñi fi nekkoon euh, ministre de l'intérieur ak ñooñu mais ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk des fonctionnaires de l'État xam ne dañuy jëriñ askan bi ba keroog yàlla di leen jëlee fu ñu nekk muy police juge magistrat yi il les a menacés maintes fois chaque fois yow saa yu génne daf leen daan menacé képp ku takkoon ci ay dossier ak képp ki nga xam ne ni defoon nga liggéey bu extraordinaire bi ñoom bi ñu fi moom bi ñu fi wootee mortel combat yebal ay doomu sénégal sénégalais ne leen ne leen jaral dee

parce que ay nit dañ ci ñàkk seen bakkan jarul muy camoufler donc di jël ay photo di teg ci ginnaaw di leen ko nàmpalee ñoom jeunesse bi nga xam ne nii ñoom ñoo génnoon ci mbedd bi am na am na ay boo yoo xam ne bi Ousmane Sonko jigee Casamance di ñëw si yoon bi yaa yaa eu des morts yoo xam ne policiers yi laaluñu leen

parce que bu boobaa day wacc jomay sax xamna dañ koy bàyyi mu yeggali 5 ans après moom tamit mu dem wuy ci parce que li fi xewoon nul n'est coupable que Ousmane Sonko. justice wala dama guy ji nga ne wuy juuma. ah mais ñom ils ont dit que cette loi d'amnistie euh, dañu ko tek dans le but de protéger des gens yo xamantene ni dañu impliqué wu dans ces affaires là li fi xewon ba 2021 ba paré ba paré bokku ci coalition Benno bokku Yaakaar wala bokku ci régime. en place bu non non bu do wax Benno bokku Yaakaar. do wax régime c'est son les ministres de ministre de l'intérieur la ñu accusé te mm-hmm. c'est un fonctionnaire de l'état da doon liggéeyal état peuple sénégalais doon liggéeyal mm-hmm. tey doo ko toppee da ngay topp sénégalais yëpp état continuité la doo ko toppee ministre de l'intérieur bi tamit da nga top. Mm-hmm. parce que état continuité la ñooñu mënuñu leen topp si dara ñooñu dañoo amoon devoir ak droit protéger population sénégalaise te si loolu lañ nekkoon bu ñu nax nit ñi ministre de l'intérieur kenn mu ko topp si il a protégé ce pays da daan toog man gis naa ay policiers yoo xam ne daan toog trois jours du ñu nelaw tey ñaanu tey euh, wóor na ma lii du nekkoon ci beneen l' Afrique de l'Ouest on dira que y a des milliers de morts man xam naa li nekk ci yeneen dëkk yi mais heureusement que que nos forces de l'ordre chapeau à eux ba nga xam ne yam na ci 86 morts Ousmane Sonko yónni pour ñu xaru pour mu toog tey fu mu nekk loolu rek la am na si bi na nga ko dugal assemblée ñu xool ndëgam ñoom ñëpp du ko voté du ñu ko voté Sénégal ñoo leen teg bët kon li may wax rek mooy na jeunesse bi fagaru ñom ñu genn tay la marche waron am ñu ne Ousmane Sonko na leeral 86 morts moom yi mu raylu mom ak Adji Sarr loolu mo waron nek débat politique actuellement tay vous pensez qu'il est le seul responsable de ce qui s'est passé ci euh, événement yooyu noonu quatre-vingt-six morts là mom la. mais il est le seul responsable parce que justice c'est ça nga tooñ nga ñàkk tooñ ñu tooñ la tooñuñu la yego tino du la wooyee da nga wara dem wuyu si t'es un patriote li ngay woote li nga wooyee da ngay dem wuy ji ay moromam lañ fi woo ñu dem wuy ji ñoo xam ne ñu dara ay moromam lañ fi woo ñu bàyyi lépp lu ñuy def dem wuy ji justice ñu def la mandat pour ñu ñëw jël si la duñ lay jël si tu te livres à loolu mooy patriotisme bu njëkk nga jox leen seen parce que moom bi muy dem di liggéey di dem di contrôler impo yow du demaat nit ñi dañ daan xeex ak moom dafay impôt moo gën metti mm-hmm. nit ñi dañ daan négocier ba dem wuy ji kon moom li mu doon woote dafa nekk woon si moom ndax na askanu Sénégal ba reylu ay doomu sénégalais te dossier boobu fii ba mille ans kenn du ko yëkkati. dañ dañ dañ koy yëkkati waat. non kenn du ko yëkkati grand. non day jógaat lu tax xaaral Modou Coumba ah, Modou maa ngi ñëwaat ci yow lan moo tax nga jàpp ni dossier boobu noonu euh, kenn du ko yëkkati waat. xam nga xam nga xam nga lu tax ma wax ko parce que doo xoolee bi muy turee génnee di réclamer justice pour les quatre-vingts morts. Mhm. sortie bi mu mujjee woon

Ousmane Sonko du amul lu ko neex rek yoni xalé yi genn len dee leen mais y avait des menaces légui nak état kan mo koy top état ken mënu ko top si état c'est le peuple. si même yow personnellement tu peux porter plainte à l'état. wa yow yow. yow ci sa bop yow non dama né ci dossier bi. la loi te permet la loi te permet yow yow. l'affaire des morts là. la loi te permet yow individuellement de dem porter plainte. ok Ouais. mais si si si dossier bi. déjà si vous avez euh, les arguments qu'il faut pour défendre cette cause tu peux porte pleine. Juste pour faire une manifestation, avant de faire la manifestation c'est se manifester dans une conférence de presse ñëpp toog nga toog nga génne wane ay vidéo accompagné avec des vidéos avec avec des vidéos et des liens de presse yoo xam wax nañ euh, il y a une presse euh, woman right Bon demain, dañ ko fa def dañ fañ ko ba ba jël benn vidéo def lien bi wane tout ce qui s'est passé te ñoom bu ñuy wax Nations Unies mu leen di dégg mu leen di gis on a le droit on a le droit de porter plainte pour les éclaircissements sur ces morts. D'accord. Euh, moi je vois que peut-être tu n'es pas aussi informé mais tu peux lancer cela à partir d'ici à partir de moi à partir de quelqu'un d'autre qui veut que ce combat soit clair parce oh. que ils ont des pères ils ont des mères. Moi, Koumba laisse le finir s'il te plaît. Vas-y continue. Euh, lan moo tax nga ni sax da nga japp ni euh, justement euh, ni que dossier bobu noonu duñu ko duñu ko tegaat ci kaw table bi. mais dossier bobu ci négociation yi la bok mm. dossier bobu motax Ousmane Sonko génn motax tax ma la ko dossier bi ñom duñ ko mësa yëkëti mm-hmm. waaw mais motax tax ma rek motax motax moo Ousmane di changer juge yi di changer procureur di changer police bi lan parce que mm. les policiers ils ont eu des preuves dañu ay preuves yu leer nañ yo xamné ne bés bu ko génnee Ousmane tap làmmiñam yuuxu ils ont payé des jeunes yo xamé dañu dañoo ñëw fii pour def fi pagaille dans ce pays. motax tax ñu leen oh, oh, voilà kon moo tax ma dossier bi ci négociation yi la bok motax tax le Ousmane du wax boy yi ndëgam dina yëkëti dossier 86 vingt morts yi du ko yëkëti mom en tant que premier ministre. Diomaye du ci wax yàbbi. gis nga euh, dossier François Mancabou Ousmane lan la waxoon je police bi moo ko rey mooy waa xaru mbëkk giri bi Ousmane dafa genn ne police bi moo ko rey mhm. yuuxu ko fépp def ci meeting voilà def ci def ci conférence mhm. def ci ben meeting mhm. joxe une minute une minute yow de silence yuxu gis nga jour bu dossier bi amé bi nga koy wax Diomaye il était au courant que waa mo xaru Karim xaru xarak il était au courant que waa dafa xaru dañ len wo man ak fallu Diagne wo Diomaye nako Ousmane Sonko li wax parce que xam ni waji mo xaru jomaay na dit que ni waji mo xaru mais Ousmane Sonko il fallait que mo wax ko loolu mooy C'est c' de l'hypocrisie. c'est grave nga xam la vérité. c'est grave di indil population bi di la police. la moo a police. Mhm. Tu nit ko xam dafa xaru dossier bobu ñu parce que dossier ñu sont Ousmane Sonko

tu peux et quelques morts la ñu wax quatre décès ah, je crois que niñ koy waxee ci bii yi passé mu wax ko yëpp noonu la à chaque fois ci espace politique bi amee ku génn ñàkk bakkanam ci ay manifestation rek ñëpp dañuy ñaan justice à chaque fois comme ni ñuy reyee ni ñu ñuy ñaan justice mm-hmm. xam nga dafa neexul aana ci mbirum politique kase ñuy politique kase kase nga xëy nga ñàkk sa bakkan ci loolu kase kase euh, loo xamante ne ni xamuñu sax Euh, euh, euh, say waajur ñu sax xam affaire de manifestation politique woote nga rey doomu jàmbur dinañ laaj ñu ñu leeral ko parce que dafa am ay bakkan yu tëdd dinañ ko laaj parce que seeni ay kilifa dañu ñàkk dinañ ko laaj parce que dañu dund lu metti ci mbir moom te ba tey kenn waxu leen da dinañ ko laaj ba tey parce que am na ñoo xam ne sax dee nañu waaye am na ñoo xam ne ñu ngi dund waaye danoo laago ci mbir moomu ñii seen bët yi dafa am problème ñii seen tànk yi am problème ñii ñu dagg si ay loxo lu nekk ndax politique politicienne entre deux camps yu jàkkaloo ci benn histoire boo xamante ne lu ñu waroon na mën a régler la en tant que ay kilifa ñu war ko mën a régler en tant que Sénégal benn bopp la pays teranga la mais defuñu loolu xale yi génn ñu rey ñu def lii ñu def lee ba pare fan lañu mujjé ki mo qui def ké tamit dina ké mo def après légui fan lay dem ñu ñu dé ñoo perte kan mo koy remplacer ak ran mo koy remplacer chaque jour la même chose dañuy wax il est temps que mu ba mu jeex à chaque fois lu ñëw rek mu gëna metti je crois que légui du ay politique politiques wax léral leen walla euh, euh, euh, responsabilité je crois que c'est la population sénégalaise qui devrait prendre ses responsabilités parce que lu ëpp day tuuru te dee yu fi am chaque jour fàtteeguñu ko ba tey te bëggatuñu ko kenn bëggu ko donc comme politique yi bëgguñu ko mënuñu jël seen responsabilité mënuñu interdire doomu jàmbur yi ñu génn ci mbedd mi di ko def ñoom population sénégalaise ñu am seen mat am seen fulla am seen fayda jël seeni propre décision dootuñu génnal benn politicien di ko sànnil xeer parce que li gën a metti man ana pour daaneel ma koy ñaawlu foofu mooy à chaque fois politiciens yi dem am problème xale yi génn di leen xeexal doo gis benn politicien boo xamante ne si ko biir làmb bi doomam mi ngi fa walla njabootam ana bi 86 moor yi dee yëpp da nga gis ñu ne la ñu ngi dem tey jaale benn doomu politicien ñoom ñëpp y compris que muy camp ñi fi nekkoon ñi fi nekk tey ak ñi fi jóge est-ce que mës nga dégg ñu ne la doomu politicien bi la rey si manifestation bi ñu ngi koy dëjal amul moom la ñu yóbbu hôpital da nga ko dégg léegi ñun nag ñi nga xamante ne ñun amuñu yoruñu nekkuñu fenn occupé wuñu dara ñun ñoo war a nekk ci mbedd mi des foofu ñun ñoo war a damm ñun ñoo war a laago ñun ñoo war a def lépp après ñu dem ñu souffrir ak suñuy parent kenn toppatoo wuñu ñii ñu suuf seen doom ñu perte amul benn benn suivi dafa ñaaw il faut que les nouvelles autorités ñu jël seen responsabilité ñu leerale les quatre-vingt-six morts su fekkee mën naa ne waaye nag xam naa ne dina nekk dina yomb parce que lu la waa amnistie teg nag je crois que ancien président ba mu ko doon def war na ko xalaat bu baax bi muy proposé jàmm nag neex nag buñ ko wootee waaye na nañuy fàttaliku ñi ñàkk seen ay doom seen njaboot ci lépp lu am ànd